syndicat des greffiers du Sénégal. D'abord, je remercie la presse qui est ici présente pour relayer ce point de presse que nous organisons par rapport à l'événement d'hier que tout le monde connaît. C'est l'arrestation de notre collègue, Maître Ngandemba Touré. Et si je vais, je m'en vous lire le texte liminaire en français d'abord puis je vais essayer de traduire en wolof et il série de questions au maximum cinq parce que nous avons des comptes de temps nous allons le et essayer d'y apporter des réponses cette rencontre de l'amicale des greffiers du Sénégal avec la presse fait suite à l'arrestation de Maître Ngagne Demba Touré suivi de son placement sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet Cela a suscité une forte réaction de la part de tous les greffiers et travailleurs de la justice. Dans un contexte général marqué par la décrispation et l'apaisement de l'espace public et social, le secteur de la justice, pilier important de tout état de droit, ne doit pas en être en reste. À la place, ce secteur est marqué par des grèves cycliques dues à la non-satisfaction des revendications des travailleurs de la justice, puis Ces derniers ont constaté avec désolation et émoi un acharnement sur l'un d'entre eux, Maître Ngagne Demba Touré. Il a été arbitrairement affecté, poussé à l'exil et mis aux arrêts des son retour en toute violation des règles à son statut de greffier. Ainsi, il sera question d'aborder, entre autres aspects, l'acharnement et les poursuites inopportunes et subjectives sur la personne de Maître Ngagne Demba Touré, ainsi aussi un plan d'action des syndicats sur proposition de l'amicale et celle des agents de la justice pour sa libération totale. Merci. Je m'en vais pour euh, le Wolof. Donc, man la maître Ibrahima Sarr président amical des greffiers di Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant ci seen teewaay yéen waa presse bi pour mën a àggale suñu baat ci opinion bi. li xew na mooy li ñëpp umpul muy dëmb arrestation Me ngañ Demba Touré greffier de son état dëmb amical bi li ko andi fii tey pour mu jàkkaarloo presse bi moo ne ngañ Demba Touré dëmb le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar hors classe de Dakar da ko placé su mandat de dépôt yóbbu ko kaso loolu nag taxoon na képp kuy liggéeykati justice ak ñun ñi nga xam ne ay naataangam lañ greffier mu am benn réaction bu forte bu ñu defoon naturellement il relève de notre corporation si suñu naataanga la bokk te nit ku ne aussi sa mbokk nga am loolu bi mu amee nag li xew dëmb ñëpp gis nañ ko mu doon lu lu regrettable lu mënoon ñàkk a am ndaxte tey ci espace public bi ñëpp gis nañ ne les autorités les plus hautes de ce pays ñu ngi woote jàmm mu lu ñuy wax apaisement kon bu ñu demee ba lii am dafay gën a indi ay jafe-jafe lu tax ndaxte secteur de la justice ci boppam umpule ne temps yëpp dañoo nekk ci grève bu métti parce que dañoo am ay revendications yu ñu doon laajte te ba léegi amuñ ci satisfaction kon bu ñu demee loolu bu demee dox dox ba fii nii maire boobu travail de justice jàpp ko greffier yi jàpp ko ñu bugg see raax si doole ñu bugg see andi leneen loo xam ne dafa concerner un des leurs mooy ko xam ne dafa bokk si ñun dafay gën a yokk ay jafe ay jafe-jafe mooy ñu jàpp Ngagne Demba Touré mu doon greffier am ay textes yu régir son statut ngañ boobu ñu bugg ko dugal kaso loolu aussi du doon loo xam ne dañ ko nangu suñu loolu moo tax tey ñu jàkkaarlook yéen pour mun a andi ay leeral parce que ngañ gis nañ ne bi ñëwee ba léegi dañ ko ërtal balaa muy dem sax exile dañ ko ërtal mu ñib si ñu téye ko di manière boo xam ne statut permettre ko daal ko jébbal kaso loolu nag mënuñoo toog rek croiser les les loolu moo tax tey amical bi jàpp ne acharnement la ërtal la parce que poursuite mënoon nañ bañ a am si ngañ vu tax na aussi amical bi jàpp ne ñaari syndicats fi nekk aussi dañoo war a mettre en place un plan d'action loo xam ne dina tax ñu poser ay acte ba ngañ mun koo libérer si jàmm loolu daal moo nekkoon li ñu leen jotal li si ay kàddu léegi nag nous sommes ouvert euh, nous sommes ouverts à vos questions, une de questions. Et nous avons parlé au modérateur, on voudrait vraiment que ça ne dépasse pas cinq questions et qu'on puisse y apporter des, des, des réponses idoines et précises. Nous, pour, parce qu'on autre chose à faire, on a des contre de temps. Et je pense que, et on compte sur votre compréhension.